yenn mbir yoo xam ne dinay faral di xew sunu réew ñu koy faral di taxawee ci bis bu màgg bu tedd boobu mooy bisu tamxarit ñu indi woon ci yenn mbir yoo xam ne ñenn ñi dañ koy faral di taxawee dëgg-dëgg mu doon ci lu ñu xam lu uuteeg diine te ña koy defit sukkandikuwuñu lenn ca la tax ñu di ko def lu dul mu doon ay biddaa aki aada ndax amul lenn loo xam ne ci mbir yooyu dañu koy fekk ci téere yàlla bi wala ñu koy fekk ci digle bi sallallahu alayhi wa sallam wala ci mag ñu baax ñi asalafu saalix déedéet benn yoon doo ko fekk ci ñoom lu dul ne di nga fekk ci ñoom ñoom sahaaba ya ñu doonoon ñoo xam ne doon nañ ko woor ngir séentu ci fayu boroom bi subhaanahu wa ak dig bu rëy bi nga xam ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ab jullit bu taxawee loolu ci bisum tamxarit yool boobu dina ko ca fekk mooy ñu faral la at bi nga paase lépp loo ca am ci ay bàkkaar borom bi subhaanahu wa taala jéggal la ko moo tax saxaaba yi doon nañu ittewoo loolu woor ko muy bisu jaamu yàlla ci ñoom waaye itam ñu koy woorloo seeni njaboot amma lu dul lii nag ci ñi nga xam ne tey ñi ngi nekk ay jullit di ko taxawee dëgg-dëgg mbir la boo xam ne dañ koy delloo ñoom ci seeni taxawaay waaye duñ ko delloo ci mbir moo xam ne dañu koy askanal ci wàllu diine balkay danga naan dañuy tàbbi ci ay musiba yoo xam ne dina leen jural bàkkaar mooy def loo xam ne dañ leen koo tere amul ci seen wàllu diine te bis la boo xam ne la ca ab jullit soxla te war doon koo xam ne te mu waroon a doon koo xam ne daf koy ittewoo mooy nu ko nu muy bokkee ci borom bi subhaanahu wa ñi muy faral seeni bàkkaaru at muy at ba nga xamante moom la weesu waaye nekkul loo xam ne danga cay xëcc ab bàkkaar wala lu lay jural mer boo xam ne day am sa digganteek sa borom subhanahu wa taala ndax yow mi nga xam ne tey yaay góor di sol yére jigéen ak di maquillage oo ko puudaru xam nga ne loolu moom lu soreeg diine la ndax góor moom war naa tal laneen lu dul di maquillé wu mel ni jigéen ak di puudaroo ko rosawoo woo ko pastelu te tey ñu ëpp ci ñoom loolu dañ koy taxawee ñenn ci jigéen ñi itam doon ñoo xam ne dañuy sol yére góor ngir di nuru nurulu góor ña cest à ne kenn ku ci nekk daa bàyyi woon la nga xam ne moom lañ ko cëralee daa bàyyi la nga xamante ne moom mooy ab aadaam te yenent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne yàlla rëbb na góor gi nga xam ne dafay nuru nuru lu jigéen waaye ak jigéen bi nga xam ne itam dafay nuru nuru lu góor kon loolu ab tera boo xam ne diine moo la ko tere mu doon loo xam ne danga ko war a sori ndax dafa am yoo xam ne jekkul rafetul waaye itam euh, dafa doon loo xam ne lu soreek sa diine la waaye itam dafay jur sax nag ab mankite ndax góor ni ko yàlla bindee xam ngeen ni sër jekkul ca moom tay baas jekkul ca moom mbir la yoo xam ne rafetu ca ndax damay wax ne oto ka ko defar moo la mën a wax ban yoon nga koy jaare ba mën a doon koo xam ne dinga ko dawal te ñun nag ki ñu bind kenn ku ci nekk muy góor muy jigéen daf kaa jox ab rôlam boo xam ne moom la war a taxawee kon ku ca wàcc sa ànd sa sa ànd rek da nga yëg ne sab doyadi la bàlleen ñu ci kàddu gi wala sab matadi wala sa yaa yaani sab ñàkk xam kon ñi koy def ñu delluwaat ñu tuub ñu ragal yàlla te xam ne dëgg-dëgg day ab jullit lépp lu muy taxawee war naa am ab delluwaay bu dëgër ci diineem nañu tuub seen digganteek seen borom te xam ne loolu mbiru caaxaan la waaye mbiru ab réer la mu doon nag ay aada yoo xam ne boo waxee ñu ne fa ko fekk waaye yu tilim la ay aada yu salte la yoo xam ne dëgg-dëgg day diine nekkul loo xam ne rafetlu na ko benn yoon ña nga xam ne itam ñoo cay wër ay këru jàmbur di ñaanaatoo ka yalwaan dëgg-dëgg jéggal leen ñu waaye loolu rek moom mooy la cay am yaa ngi dem ci koo xam ne ah dangay def waaye yaa ngi koy lor ndax boo moytuwul kër ga ngay dem di tëgg ka fecc am na ñu ca feebar ñoo xam ne bruit ba ma nga leen lor te diine daf laa tere nga doon koo xam ne da ngay lor say dëkkandoo waaye daf laa tere nga doon koo xam ne da ngay lor sa mbokk jullit ndax yàlla daal jaam bi mu bëgg mooy ki nga xam ne day taxawu ay mbokk jullitam ci di leen dimbali ak di leen jural njariñ waaye nekkul koo xam ne dafay lor ay mbokk jullitam benn yoon waaye boo moytuwul itam yaa ngi laaj koo xam ne yóbbee nga ko sa ba mënulaa ñàkk a jox te yow lam lay jox soxlawoo ko te moom boo ko ko bàyyee itam dina ko jariñ kon loolu lépp day wane ne lor ya ca nekk bari na mu dem ba am na ñoo xam ne ci la ñuy profité di def jigéen ñi naka sudul noonu waaye yemuñu ca sax am na ci ñoo xam ne dañuy dugg ci kër ya di sàcc ak yeneeni mbir ak yeneeni mbir ya cay xew kon loolu moom day wane ab jullit saa yu sàgganee rek barax ca mbiram loo xamante ne du luñ ko sant du luñ ko digal nekkul loo xam ne da koy taxawee mu koy jural njariñ dëgg-dëgg bu ko defee du ko jural lenn rek lu dul ay lor kon di wax na ña koy def nañu yëg ne ñi ngi ci njuumte ñi ngi ci ab réer waaye bal sax ña ngay tàbbal seen bopp ci bàkkaar ndax am na lenn ca mbir ya yoo xam ne ña koy taxawee loo xam ne dañ leen koo teree taxawee ko lam leen di yóbbee rek moom mooy ñu doon ñoo xamante ni daf leen di tàbbal ci ay bàkkaar mbokk yi bu ko defee ñuy baalu àq di jéggalu bu baax a baax ci guddaayu audio bi waaye mu mel ni tomb bi ñu laal moo tëddee noonu ndax dafa doon ab aada boo xam ne lañ cay def mbir la boo xam ne dafa soreeg giine fii nag lañuy ñuy kon sunu jotaay di leen baalu ak di leen baal di leen ñaanal yàlla jàmm ju sax dàq ngeen koy am saa su ne di wax ne jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal ci effort yi nga xam ne macha allah ay effort yu rëy rëy la ci ñun waaw góor di wax ne ab jullit moom diineem dafay bokk ci mbir yi nga xam ne wala moom mooy mbir bi nga xam ne da ko war a itteel ci kaw lépp